asalaamaaleykum sama gars yi ñu ngi leen di ziare bu baax baax fii ci réew mi sport aljuma le 4 octobre 2024 ñu ñëw ci xibaar yi bu fekkee ne abonné go ñu ngi sàkku nga abonné partagé lii di vidéo bi lu am am solo la ci seen bi ñu ñëw ci xibaar yi. xibaar yi dañ koy dal di commencé fële ca Italie wax ci équipe bi di Inter de Milan après donc ndam li nga xam ne am na ko ci Ligue des Champions bi après nag joueurs yi Inter yi globalement donc yëkkati nañ ay kaddu donc xamal ne donc équipe bi fi ñu toll nii ñu ngi commencé di delluwaat comme nañu meloon comme na nga xam ne la ñu gise woon di famille te loolu nag daanaka victoire bi nga xam ne ak keroog am nañ ko ci Ligue des Champions bi di ci firndeel lu bëree bëri par exemple. ku ci demee ne kii di euh, Trémi donc di attaquant wu iranien boobu nga xam ne Lautaro Martinez moom mooy kii war a door penalti mais ba mu amee penalti daf ko jël jox ko kon ndax mu mën a dugal ndax bu fekk na Lautaro dugal après match bi kii di Trémi daal di def déclaration ne équipe bi ci boppam dañuy dund comme une famille moo tax fi mu toll ne bëgguñu kenn koo xam ne rek da leen jéem a xaajatle kon kii di Lautaro dafa mel ne lam la waxoon ma nga ca maanaam daal man maay responsable mauvaise performance yu Inter yi dinaa liggéey pour que Inter nekk fa mu nekkoon fi ñu toll nii nag Inter eh, mi ngi commencé gisaat envie ñu ngi commencé gis bëgg-bëgg peut-être que Lautaro Martinez ci boppam moo commencé discours am di jàll ci club boobu di Inter de Milan gaañu Lautaro Martinez moom xam ngeen ne keroog bit bi nga xam ne dugal na ko ci Ligue des Champions ko permettre mu baat mu mën a doon. loo xamante si ni lu rëy la muy lan meilleur buteur histoire yu Inter de Milan ci euh, lii di histoire Ligue des ndax ndaxte keroog romb na benn moroomu argentin am ñu koy tuddee kii di Jolio Grich nga xam ne légende la treize bii la dugal keroog romb na ko romb aussi ku si demee ne Eto'o mi nga xam dugal na lu mat onze bii ak Inter de Milan ci lu jëm ci Ligue des Champions léegi nag kum teg bët fi mu toll nii Adriano Adriano moom dugal na 14 imaginez benn bii bu ko dugalaatee day tolloo kii di Adriano moo tax kii di Joliot di donc nekkoon joueur Inter nee na nee na yaakaar naa ne un jour kii di Lautaro Martinez dina gagné Ballon d'Or kon moom doon na joueur boo xamante si nii légende Inter yi bëgg nañ ko waa Inter bëgg nañ ko Argentine bëgg na ko léegi nag la def mooy mu def preuve ak tuuti géwél yu ko waxal rek. donc pour que mu mën a am li nga xam ne moom la ñuy tuddee ballon d'or bi nga xam ne moom lay moom mooy sàkkuteefam ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Calabria donc di capitaine bu équipe bi di ancien Milan encore blessé bu may waxee encore blessé mooy que miin na blessé bi mooy déjà troisième fois ci biir saison bi mu blessé même pas donc deux mois donc de la saison euh, mu ki nga xam ne moom la ñuy tuddee euh, kii di. Euh, donc Calabria bilancé encore kon day daal di raté prochain match bi nga xam ne match bu am solo la pour équipe boobu nga xam ne moom mooy Milan di seen diggante ak équipe bii di Fiorentina heureusement kii di Emerson Royal donc pare euh, pour làq absence am mais équipe bii di waa mm, AC Milan dina a jafe ci ñoom pour que ñu mën a compter ci kii di Calabria ci biir saison bi lépp lépp parce que jour la boo xam ne fa xaw a facile yaakaar naa ne fii la peut-être que regret réccu di dikkee lan moo tax ñu wàcc kii di Kalilou mu dem seen di fa li nga xam ne moom la ñuy tuddee waa Juve waaye daal li wóor bu wóor mooy équipe bi di Inter de AC Milan mënul perte ci mënul compte ci prochain match bu ki nga xam ne moom la tuddee contre Fiorentina pour kii di euh, Calabria. ki nga xam ne moom la ñuy tuddee waa Real Madrid euh, gaañi xam ngeen ne am na yeneen i taskatu xibaar yoo xamante si nii ñu ngi génne ay information ne Real Madrid donc euh, commencé na jël contact ak kii di agent bu kii di Trent Alexander Arnold maanaam daal waxtaan mi ngi commencé am diggante Real ak kii di euh, Trent Alexander Arnold pour mbir mi xam ngeen ne loolu jógoon na fi ba ñu donc indi fi suñu démentir bi nga xamante si ni indi woon nañ ko ci ay sources yu wóor. kene ki nga xam ne mooy Real Madrid euh, fi toll nii duggagul ci ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Trent euh, Trent Alexander Arnold léegi nag dikkaat na cette fois ci tudd nañ sax kañ ci tuddoon di ki nga xam ne moom mooy joueur Bellingham ne Bellingham a convaincre ki nga xam ne moom mooy joueur bi yaakaar naa ne convaincre agent bi moo gën convaincre joueur bi parce que agent bi moom ba accepté pour que mu wax ak joueur bi ba joueur bi accepté loo xamante si nii aussi luy jafe lay doon donte parfois recrutement am te jàppandalu joueur am na ci la preuve mooy que juge ne bu signé baax sax lu wàllu ci la bokk waaye li nga xam ne mooy information bi te kii di Fabrizio Romano génn ko mooy fi mu toll nii benn contact amul diggante waa Real ak ki nga xam ne moom la ñuy tuddee agent bu kii di eh, Trent Alexander-Arnold maanaam daal dara fi mu toll nii amul diggante Arnold ak ki nga xam ne moom mooy Real Madrid Arnold ci boppam première li nga xam ne moom mooy bëgg-bëggam mooy rester à Liverpool ba tey waxee kii di journaliste boobu ci Fabrizio Romano. nee na équipe bii di Liverpool bëgg nañoo donc gaawal waxtaan bi ndaxte proposition am na d'accord mais juboo amagul léegi nag bu juboo amagul nag firndeelu ne jour bi bëggut a toog mais xëy na la lañ ko proposé ci boppam moom moo ko arrangé wul léegi nag moom mu wax li arrangé boobaa nag waxtaan day daal di am parce que mbiru contrat la mbiru xaalis la donc ça concerne ça l'avenir am mais première bëgg-bëggam mooy rester Liverpool léegi nag bu mu tudd toog Liverpool peut-être que opportunité dina doon faneen muy Real muy Bayern ou xam leen ne actuellement nii benn contact amul diggante Real Madrid ak entourage ki nga xam ne moom la ñuy tuddee kii di Trent Alexander Arnold ki nga xam ne moom la ñuy tuddee Rodrigo donc gaa ñi xam ngeen ne. keroog donc dafa daal di toog ci banc bi contre Lille durant quatre-vingt-dix minutes loolu nag taxoon taskatu xibaar yi xawoon ci am ak njàqare est-ce que amul benn problème boo xam ne dafa am diggante entraîneur Real Madrid bi di ci ak joueur Brésil bii di Rodrigo mais li nga xam ne génnewaat nañ ko ñoom taskatu xibaar yi mooy que benn problème amul mais nag kii di Rodrigo ci boppam moom moo parewul maanaam daal dafa am benn gaañu gaañu boo xam ne moom la amoon ci tànk bi ak Carlo Ancelotti. bëggul woon a jël benn risque di ko jiyeloo boo xam ne mën na yokkal li nga xam ne moom mooy gaañu gaañu boobu kon benn problème amul problème personnel amul salon donc lii di taskatu xibaar yi euh, concernant kii di Carlo Ancelotti ak kii di Rodrigo ndaxte Rodrigo mënuloo ñu mane la nga wàcc ko ci banc bi donc pendant quatre-vingt-dix minutes euh, donc koo xam ne sax dafa waroon titulaire mais titulaire ba mane la ko war a dugal donc bu fekkee dugaloo ko rek moo xam nag problème personnel la moo xam nag problème mu donc physique la mais problème mu physique fi mu toll nii la taskat xibaar yi génn ne kii di Rodrigo moo taxoon joué wul contre kii di Lille ci défaitu Real Madrid bi 1 bi à 0. Real Madrid nag défaite bi nga xam ne am na ko keroog contre Lille daanaka. liil dafa yàq ab benn dynamique boo xam ne Madrid def ci nekkoon ci ay record yoo xamante si nii di doon am ak moom daanaka ma naa jàpp ne yàqal na ko lu nga xam ne mooy trois trois dynamiques de record yoo xamante si ne Real Madrid mi ngi ci woon way trois dynamiques record avant que Lille di dóor Real Madrid Real Madrid tolloon na 36 matchs invaincus toute compétition confondue maanaam daal lu mat fanweeri match ak juróom-benn la Real Madrid toogoon amul défaite bu ñu waxee nag toute compétition confondue maanaam bépp compétition moo xam li jëm ci wàllu Ligue des champions ak championnat lépp lépp boo ko boolee Real Madrid donc toogoon na fanweeri match ak juróom kenn dóori ko kon loolu moom. dakk na bërki démb bi ko Lille dóoree 1-0 ndaxte défaite am na 25 matchs invaincus à l'extérieur maanaam daal laataa ko Lille di ko dóor Real Madrid tegale woon na ñaar fukki match ak juróom yoo xam ne day génn di dem ci terrain jaamur yi te kenn mënu ko gagné maanaam daal 25 match yoo xam ne Real Madrid fu baliwu ko Santiago te kenn gagné ko te bërki démb dafa déplacé wu dem Lille Lille dóor ko 1-0 kon loolu tamit yàq na ko di deuxième record beneen bi mooy 14 matchs invaincus donc en Ligue des maanaam daal lu ma toon fukki match ak ñeent 14 match Real Madrid amul woon défaite lu jëm ci wàllu Ligue des Champions donc euh, barki démb tamit Ligue des champions la woon diggante moom ak Lille kon Lille daal di nay dindi trois records yoo xamante si ni moom la am di 36 matchs yoo xam ne Real Madrid pertul woon loolu dakk na 25 matchs yoo xam ne Real Madrid pertul à l'extérieur boobu dakk na 14 matchs yoo xam ne Real Madrid pertul Ligue des champions léegi nag des na ay records yu am solo te xëy na sax mu ëppal solo waa Real Madrid muy record Ligue des championnat bi 43 matchs sans défaite Liga. donc boobu nga xam ne Barcelone moo ko defoon depuis 2017 2018 Real Madrid am na possibilité pour am ko ci kaw bu amul ñetti défaite euh, ci lii di bu amul defet ci ñetti match yi nga xam ne moom la dëkkmal gaa ñi dañuy dem fële ca biir euh, Angleterre fekk fa kii di Chelsea ki nga xam ne moom la ñu tuddee Ben Chilwell dëgg la Chelsea pare na pour réintégrer ko mais nag euh, selon taskatu xibaar yi ki nga xam ne si moom la ñuy tuddee. Chelsea seen bëgg-bëgg dara sensé wu ci mooy que jox nañ respect kii di Ben Chilwell mën nañ kaa intégré te saa ñu ko soxlaa dinañ ko joué mais Chelsea li bëgg mooy Chelsea sans ko ak bu fekkee ne Chelsea dafa dem ba ci digg ba mu am ay joueurs yu blessé war mu bëgg a noppal ay joueurs joué loo ko mais nag li nga xam ne mooy bëgg-bëggu Chelsea moom mooy tàqali ko ak kii di benn cellule loolu dara changé wu ci te janvier dinañ ko dobbalewaat dinañ ko jéem a buux pour que mu génn club boobu nga xam ne moom la ñu tuddee waa Chelsea dafa am ay supporters yoo xam ne parfois dañuy exagérer joueur il suffit que parfois mu def benn match rek gaañu ne jour bi xamul dara jeexal na na dem ci banc ba loolu lañ commencé woon def def Gundogan kuy wax naan Gundogan xamul dara et pourtant bokk na ci top 3 peut-être sax même le meilleur joueur donc du FC Barcelone la saison passée et mu joué benn match ñaari match avec Manchester City ñu ne waaye Gundogan léegi euh, jeexal na pare na na dem ci banc ba Gundogan ne leen taxaw leen. yéen a gën a xam ne Pep Guardiola bu ma indiwaatee ci club bii di man City indiwu ma fi pour parce que man mënuma dimbali City daf maa indi parce que xam na ne am na loo xam ne dese naa ko ba tey te man kaa jàppale équipe bi di City te man bu ma xamoon ne man mënumaa jëriñ dara City du ma ñëwaat City donc ba ñëwuma leen noonu beneen bi mooy xam leen ne ñëwuma fi tamit pour toog ba way yéen ñi yaakaar ne aussi damaa ñëw City pour toog ci banc bi pour que doon remplaçant non non dama ñëw pour jouer pour titulaire ci club bi nga xam ne moom mooy City kon loolu moom c'est très clair pour kii di Ilkay Gündogan pour yéen ñi naan jeexal na pour yéen ñi naan léegi joueur ban lay doon pour yéen ñi naan kii di Gündogan warul woon a dellusiwaat ci club boobu di Manchester City ki nga xam ne moom la ñu tuddee Ryan Gravenberch donc di euh, milieu de terrain hollandais bii nii waaw moom depuis août ba tey di enchaîner rek daanaka quatre-vingt-dix minutes yëpp lay joué moo xam équipe nationale moo xam donc li jëm ci wàllu championnat avec Liverpool donc toujours ki nga xam ne moom mooy Ryan Gravenberch match yëpp lay joué loolu nag li muy wane mooy il est paré donc physiquement moo tax sax fi mu toll nii tabb nañ ko jox ko li nga xam ne moom mooy meilleur joueur Liverpool ci mois de septembre bi nga xam ne moom la ñu génn way mois de septembre bi ñu génn moom mooy joueur bi nga xam ne moo gën a xarañ pourtant marqué wul benn bi loolu day wan donc bu kenn yaakaar ne aussi xëy na football moderne bi moo xaw a yàq mbir mi boo dugalul moom paasoo rek gaañ nañu waaye nag euh, match da nga koy seetaan gis gars yi di football moom day football donc Ryan Gravenberch dugalul benn bii septembre te moom lañ tabb def ko meilleur li nga xam ne moom mooy joueur ci weeru septembre bi ci Liverpool te am na ay joueurs yu dugal Liverpool joueurs yu bëree bëri comme Mohamed Salah wala Luis Diaz dinañ ci dëkk ci kanam par rapport ak joueurs yi nga xam ne leen a tabb ci meilleur joueur championnat bu Angleterre mois de septembre. keroog rappelé woon nañ ko laataa match euh, Liverpool Bologne waxoon nañ leen ne bu fekkee ne kii di Arne Slot gañe na moom mooy doon premier entraîneur Liverpool boo xam ne sa juróom-ñeent match yu njëkk yi juróom-ñett yëpp da nga loolu nag def na ko après bu mu ko defee contre Bologne laaj nañ ko ko mu ne loolu lu baax la. loolu lu neex la parce que ma doon ki nga xam ne maa njëkk gañe sama huit match yi ci neuf match yi nga xam ne joué naa ko loolu lu baax la mais nag mais nag gënalu li ma bëgg mooy ngeen fàttali ay coupe yu may gagné maanaam daal bii record la boo xam ne du recordu dara li ma bëgg ngeen wax naan man maa njëkk gagné ay Ligue des champions man maa gagné lii man maa gagné lii loo xam ne ay trophée lay doon ay donc coupe yoo xam ne dina mën a jariñ dinañ ko mën a fàttaliku ci club bii di Liverpool gaañu dañuy wax ci huit joueurs juróom-ñetti joueurs yi nga xam ne ñoom lañ tabb pour que ñu xool kan moo ci war a doon meilleur joueur championnat bu Angleterre weeru septembre bi ñu génn juróom-ñetti joueurs yi nag kenn ki di kii di Henry Barnes donc Henry Barnes gaañi di attaquant bu Newcastle United moom ci weeru septembre bi joué na quatre matchs ñeent match la fubal dugal ñett bii surtout sax ñett bii ñett match yi tegaloo la ko dugal contre Tottenham contre Wolverhampton et contre Fulham donc jour la boo xam ne bokk na ci favori pour remporter le trophée meilleur joueur septembre. beneen joueur bi nga xam ne aussi nommé nañ ko mooy Luis Diaz Luis Diaz le Colombien ñi moom tamit ñeent match le joué quatre matchs sur les quatre matchs mu dugal quatre bi 4 bi donc premier septembre match Liverpool Manchester United mu dugal ñaari bi match aussi bi doxoon diggante kii di Bournemouth ak équipe bi di Liverpool mu dugal 2 bi ci 3-0 yu Liverpool yi kon moom it bokk na ñi nga xam ne mën nañoo gagné trophée bi avec 4 bi en 4 matchs. keneen ki mooy ab défenseur moom sax mooy seul défenseur bu ci nekk di Gabriel bu Arsenal gaa ñi Gabriel jour la boo xam ne dafa nekk ci guddeem yéen a ngi dégg Rudiger démb ne leen Gabriel bokk na ci meilleur défenseur du monde yi loolu du ay caaxaan moom nag 4 matchs yi nga xam ne joué na ko dugal na ci 2 bi en tant que centrale central. contre Manchester City dugal na naka noonu tamit contre euh, kii di Tottenham dugal na moom kii di Gabriel kon yaakaar naa buñ ko ko joxee mérite na ko défenseur boo xam ne ci benn weer dugal nga ci ñaari bii ci ñaari match yoo xam ne ay match yu mag la. beneen joueur bi mooy kii di Gravenberch Gravenberch gaañi dugalul benn bi ci weeru septembre bi moom lañ tab def ko meilleur joueur li kii di Liverpool ci weeru septembre bi mais nag joué na quatre-vingt-dix minutes chaque. match match si quatre-vingt-dix minutes yëpp joué na ko euh, ci lii di championnat bu Angleterre bi def ay match yoo xam ne ay match yu am solo ay performance yoo xam ne yu am am solo la moom kii di milieu de terrain bi moo tax il fait partie les des joueurs yi nga xam ne euh, mën nañoo gagné lii di trophée keneen ki mooy attaquant bu euh, kii di Fulham ancien attaquant bu Atlético de Madrid ñu koy tuddee Jiménez Jiménez moom ñetti match si kese la football ci championnat bi ci weeru septembre bi dugal ñetti bi dugal na contre kii di West Ham United dugal na contre Newcastle United dugal na aussi contre Nottingham Forest moom ancien attaquant Wolverhampton bi kon moom euh, plaisir la ñu am gisaat ko moom attaquant 33 ans boobu noonu parce que amoon na fi blessure bu méttee méttee moo waraloon donc mu pertoon lu bëri bëri ci niveau bi nga xam ne amee na ko. keneen ki mooy kii di Makhny donc Makhny di attaquant war a bokk milieu de terrain offensif ba tey bu équipe bi di Everton bu Idrissa moom daanaka na lu mat 4 matchs ci lii di championnat bu Angleterre dugal lu toll ci. 3 bi ba noppi def lu toll ci deux passes décisives donc passe décisive contre Bournemouth et buteur et passeur contre Aston Villa et double buteur aussi contre kii di Crystal Palace bu kii di Ismaïla Sarr donc c'est un joueur offensif un joueur talentueux aussi donc il fait partie le des non keneen ki nga xam ne aussi moom mooy vrai vrai et vrai li nga xam ne moom mooy lii di euh, euh, favorite bi di kii di euh, Cole Palmer Cole Palmer parce que gars yi bi tëg ñoom la ñuy xool ñu ci bëree bëri mais bu fekkee ne côté bi ngay xool Cole Palmer donc day gagné li nga xam ne mooy mbir mi côté di Cole donc 4 matchs la joué daal di donc dugal lu toll ci 4 bi contre euh, benn bi contre Wolverhampton donc au total di 5 bi benn bii bi nga xam dugal na contre West Ham au total bi 6 bi en 4 matchs en plus des passes décisives donc na lu tollook 2 euh, passes décisives donc ci weeru septembre bi moom kii di euh, Cole Palmer donc daanaka mu impliqué parce que 10 bi. fan kay jeexale mooy kii nga xam ne moom mooy Oli Watkins donc Watkins di attaquant anglais bi moom tamit ci quatre matchs nga xam ne joué na ko buteur la contre FCS et Pazer aussi buteur contre Wolverhampton donc di deux bi aussi tamit double buteur contre équipe bi di Everton di quatre bi yoo xam ne marqué na ko et trois passes décisives donc quatre bi et trois passes décisives sept bi impliqué sur sept sur quatre yi nga xam ne joué na ko moom tamit mérité na ko. kon gaañi kan ngeen am yaakaar mu gañe mbir mi diggante en Bancho Luis Diaz Gabriel kii di Ryan Gravenberch naka noonu tamit Oliver Keynes Cole Palmer kii di euh, McNeil ak ki nga xam ne moom mooy Raúl Jiménez moom mooy les huit yi nga xam ne daal dinañ leen. après meilleurs joueurs yi dañuy ñëw ci cinq entraîneurs yi ñu tabb pour xam kan moo ci war a doon meilleur entraîneur du mois de septembre. Arsenal Mikel Arteta donc dóor équipe bii di Leicester 4-2 dóor équipe bi nga xam ne moom mooy Tottenham derby Londres 1-0 nii la ak Manchester City 2 bi partout kon bu ñu xoolee dugal na 7 bi encaissé 4 bi ñoom waa Arsenal kon kii di euh, Arteta bokk na ci les nominés pour gagner meilleur entraîneur ji neen entraîneur espagnol aussi bu ñu nommé mooy kii di Unai Emery Unai Emery bi nga xam ne actuellement mooy quatrième. topp ci ginnaaw Arsenal troisième donc moom euh, duma na ci euh, weeru pour septembre bi ko ci demee ne Everton bu Gana Gueye 3 de duma équipe bi nga xam ne moom mooy Wolverhampton 3-1 nil ak SVT 2 bi partout donc marqué bi euh, sur 4 matchs et en plus daal di def li nga xamante si nii moom mooy encaissé cinq bi ñoom waa Aston Villa. beneen entraîneur bi nga xam ne moo gën a jege pour gagné ko mooy Enzo Maresca di coach bu Chelsea donc 4 de la door Brighton noppi 3-0 ki nga xam ne moom mooy West Ham United donc 17 bi en deux matchs 1-0 contre kii di Bournemouth daal di door aussi daal def 1-1 contre Crystal Palace kon boo xoolee 4 plus 3 7 ak bi 8 9 bi la marqué daal di encaissé lu toll ci 4 bi ci 4 matchs yi donc normalement moom mooy doon le meilleur entraîneur du mois moom kii di Enzo Mare. kii di euh, Marco Silva aussi tabb nañ ko ancien entraîneur Everton bi moom am na victoire contre Nottingham Forest 1-0 am victoire contre am aussi li nga xam ne mooy match nul euh, donc un but partout contre West Ham United def match nul aussi contre kii di Ipswich euh, un but partout kon dañuy xool ne ñoom amuñu defet ci weexub septembre bi ñoom ñi nga xam ne ñoom ñooy waa euh, kii di équipe bi ni koy jeexale mooy kii di waa Liverpool ak Arne Slot moom tamit am ndam contre équipe bi di Wolverhampton 2-1 am ndam bu yaatu contre Bournemouth 3 bi à 0 am défaite le 14 septembre contre Nottingham bi à 0 kon dañuy gis ne moom it daal di am victoire contre Liverpool 3 bi à 0 kon dañuy gis ne équipe bi di Liverpool def nañ début boo xam ne presque parfait à part défaite bi nga xam ne am nañ ko contre Nottingham Forest kon. daal boo leen xoolee gagné kan ngeen gis mu gagné lii di trophée bi entre Mikel Arteta ah, ak Unai Emery ak Aston Villa ak ki nga xam ne moom mooy Enzo Maresca ak kii di Marco Silva ak ki nga xam ne moom mooy Arne Slot pour trophée meilleur entraîneur du mois donc ñu ngi xaar seen gis-gis ci li nga xam ne moom mooy suufu sa commentaire yi kon gaañi fii la vidéo bi yam donc di leen jox dig daje ba ci kanam incha allah ci beneen vidéo fii ci Rewmi Sport et j'espère que bu fekkee ne abonné go abonné nga ba pare donc bu fekkee ne aussi partagé après bi nga seetaanee vidéo bi ba jeexal donc ñu ngi ñaan nga partagé ba ci kanam incha allah ci beneen vidéo jaa ngi jëf.